طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا Ay, bitang gabi na nga mag-aray sa wop. Yaw! Oh, mama! This is not good! Ugh. yow moom mbaa combat bi dalaa nar a dofloo. waaw ah, xëy sa eh. adrena guddi adrena bëccëg. Ah, <laughs> Ali Baba combat bi. waaw sa nga ma def. combat bi damay rey. waaw ah, booy bi ko rey fap ah. sama papa. fii laa teg saw mi moo naan ko. kii kii moom laa wax. Eh, la. mais def moo tax ma koy xool noonu. sama copain la. waaw sama copain la. voilà waaw. yéen a moom mi ñëw moom di fatt ay bakkan moom fattatuñ ko muy fattaate. ah moom de dina ñor rek. waaw ah, moom. dina ñor rek. waaw ah, moom daal di ci taawun bi ci jur leen. te man sax comprendre naa ko ndax sama gerte la. waaye nag duuli noonu dem na ci bu dee. voilà. ah non non boobu la. Ah, ok. ay eh, da nga des. maa ngi fi yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm doon naan la tonton Diop mais da ngaa génn. waaw ah, yow ni nga dee de. Ah, nga sol moom tàng na jër. non mais tàngul de kii la dafa frigo si biir. Ah, frigo bar quoi. frigo bar instant dama bokkaale ñaari ventilateur ak ñaari frigo moo tax fi ni nii du ma kii noonu la nga liggéeyee quoi. maanaam lii su may tëdd dama koy dugg ci frigo ma yeewoo moom laay sol quoi. xam nga ñoom damaa fàtte daa am lu ma fàtte ñoom. waaw doo toog ñu waxtaan. ah. na nga ah wallaahi loolu yaa waaj sa combat baax a baax. léegi laa joxe ah, entraînement. bul maye dara de. waaw ah, dama maye tous combat bii dañuy daan. boobi xam boobi tapet la. waaw seen ikiri laa dem ma firil ko jam boobi seey. ah waaye may dara. mais waxuma la yow gis nga koor gii. waaw te dégg naa da ngay gens. waaw ah. bàyyi li gens bi. xaw ma combat bi jeexee ba a woo. waaye nag ku ñu sa papa ñu ne tontoo Diop sa papa mu dàqoon gens sa papa gens na boo xoola fekk dugg pale fekk Macky Sall di di serante la mu jot di ko fay sa papa mu dàqoon ak gens ci àdduna bi. waaw ah. boo boo gëstu dina ma jaaxal. yow baax na da nga mekkee gens bu bari bi mbër mi gens moom du daan ma sa daan kenn. Oh. maa ngi dem fee te ñëw. waaw oh. ah, رمضان نجا رحمه